combat le 6 novembre mooy dàq ci at bi ak at yi ñëwoon la ak yi passé a bëre xeex loo xamante ne ñu ñëw ay cinq minutes yi noonu ku affronté Lac de Guiers 2 xeex ak ñoom ñu reculé xeex ak Ama Baldé mu reculé xeex ak ñëpp ah bu nee la di nga xeex ak Siteu kañ Siteu kañ dama pare man li ma pare moom na ko pare rek combat bi nu mu mel ci moom ba ne ba ne saay naan dem naa leen wax man loolu laa bu la neexee bu def dara dinaa mbokk yi Kajoor production ànd ak Ibrahima Diop ñoo woote ginnaaw bi ñu tëggee combat Gris Bordeaux ak Ama Baldé ba pare nee nañu le 16 octobre 2022 ci arène nationale la ñu ubbee seen saison ci diggante armée bu benn baraak ak mbay guy gi bawol bawol bu saf xorom bi lamb ji nag en live lay doon pay view ci seen affiche point com waa Sénégal 1800 francs dong la diaspora bi 4,99 euros seen affiche point com le roi en pay per view au Sénégal yeneen néeg la borom a cay fanaan. waaw wax na ko am na leneen loo xamante ni sa ginnaaw la xewe muy ministre bi nga xamante ni tey nekkoon na fi ay at huit muy Matar Ba yàlla dogal président Macky Sall wàccee na ko indi fi ku bees mu yànq ba jeetara ci Matar Ba la huit ans yi fi jot a def yow ban jàngat nga ci Gaston la ci Gaston Mbengue def. man euh, du ma wax ni mat ministre bi wàcc euh, président daf ko wàcce wàcce ko mission moo jeex rek Matar gàccee ngaalaama liggéey na fi. ci li nu gis liggéey na euh, def na fi be euh, wàcc na fi climat boo xam ni ñëpp bëggante ñëpp euh, vraiment mu tax ñëpp bëgg ñëpp téléphone fu mu sonee même su ko fekkoon mu nekk réunion suy pare di la rappeler ci yëmalu ko ci Gaston ñëpp la ko doon defar nekk nit ku ouvert vraiment jikkoom su ma sañoon ministre Macky Sall yëpp jikko boobu lañuy yor di nit ku baax mission nag day am fu mu yem su fa yemee da ngay da ngay bàyyi keneen jël am na leneen yàlla li mu yore bari na pouvoir yi mu jox Macky Sall bari na nan ñaan yàlla Macky jox ko leneen loo xam ni dana ci gis boppam dana nekk lu baax parce que Matar na xam ne nag kenn xamu ko mu nekkoon Fatick nekkul woon sax adjoint maire Macky Sall nekk président de la République teggi adjoint maire yëpp jël ko def ko maire ma Macky Matar Ba rek ma sa pa def passation de service ak un président de la République ci Sénégal ba Sénégal amee indépendance ba tey un maire ak un président de la République def passation de service ci moom rek la amee mu jóge fa deux ans mu def ko ministre di ko accompagner Matar jàppale Macky Sall aussi ci jeunesse bi jàppale ko ci yëpp yàlla it may ko mu amit chance mu tombe tombe mooy waral ay gaaf mu tombe ci yu bëri arine nationale stade Ablaye Wade arena coupe d'Afrique yëpp mu tombe ci kon gàccee ngaalaam kon moom dafa sant yàlla sant le président Macky Sall te euh, ñi nga xam ni dañuy wax lu ñu xamul ak di bëgg tàngal xolu nit ak di frustré nit wala di jënd loon fas yaa nan ni nan ñaanal Matar ba rek te bañ ko jéem a poussé ci dara d'ailleurs Matar am na xel moo xam ne kenn mënu koo poussé ci dara parce que Macky Sall frère am Macky Sall moo ko accompagné ba mu agsi fi frère am la ku ci jéem a dugg ci des te li Macky Sall amee bari nan koy ñaanal yàlla waaw. équipe buy gagné kenn du ko changé lan moo waral tey da dàqu Matar Ba tey yaakaar naa ne tey bu fekkee da koy jëlee ministère euh, euh, ministère des sports dafa waroon ak niveau bi mu mais mu dàq ko génne ko ci gouvernement bi est ce que jàppoon ay problème dafa am ci benn problème man yaakaaruma ni am na ci mais président laaj bi moom rek la ñu fal faluñu keneen lu mu def moom moo xam tax mu def ko lu ma jéem a gëstu di seet tax dafa dafa def lii wala dafa def lee xëy na soxla na ko feneen ki mu fi indi di Yankhoba Diattara c'est un jeune bu xam sport bu yàgg ci mouvement sportif di nit ku baax aussi am ah, ci man loolu laa ko xamal nañ ko ñaanal yàlla mu continuer œuvre Matar Ba def fi sax lu ëpp li Matar Ba defoon loolu la ñaan yàlla ca Matar loolu la koy ñaanal yàlla te it bu mu sori Matar na koy woo di naan di ko demander ay conseils et tout ça parce que Sénégal on est un indivisible bu nu benn seytaane walla benn waxkat poussé ka ñuy wax lu lu war la wax voilà. Yankhoba Diattara boobu am nga yaakaar mu def lu lu raw li Matar defoon lu tolloog moom. am naa ci yaakaar yàlla mën na lu ne yow sa doom sax suy juddu da am yaakaar mu gën la voilà ak bëgg-bëgg voilà yaakaar yàlla. yàlla na ko yàlla dimbali yàlla na ko yàlla euh, tete yàlla na ko yàlla accompagner ba mu def loo xam ne parce que su ko defee Sénégal la ko defal defalu ko boppam Matar Ba li mu fi def Sénégal la ko defal ñëpp ñu kontaan yàgg na bégal nit ñi kii itam di Yankhoba yàlla na ko yàlla suturaal dimbali ko ba mbégte yi ñu doon am yëpp ñu am ñu ko raw. macha allah na ci gouvernement bi génn na ah, benn bokk yaakaar. moom rek a génn ci governement yàgg ak benn bokk yaakaar ak yëpp euh, seytaane yi rek tax mu génn seytaane yi ñu gën a poussé que mu génn parce que mu Mimi Touré suñu jigéen la nit ñi am nañu jigéen am nañu yaay am nañu truc donc euh, lii am na seytaane bari na doole li mu def man suma moom ànduma ci te wax naa ko ko.

li ci biir làmb ji li ci politique bi ko raw dañuy xooñ lu ne. seen lu ne la ñuy def dañuy xabtal nit lu ne la ñuy def ñoom ñëpp ñu ngi fanaanoo sëriñ si ñu ngi ci boori géej gi di sangu guddi ñoom ñëpp lu ne la def mais ndaw si man dama ragal ñu dañ ko xabtal parce que c'est inadmissible ak li mu def lépp ak ni ko président Macky Sall bëggee ak li mu bëggee président Macky Sall li mu li mu def lépp. ki euh, nit kii def le ministre de la justice premier ministre envoyé spécial président conseil économique et social dénk la parrainage dénk la direction de campagne def la tête de liste deseelu ko Macky Sall deseelu ko dara moo ne 17 millions d'habitants lu mat 100 euh, personnes amuñu fi lu ma euh, li mu am li ko Macky Sall defal donc yal na seytaane yal na nu dàqal seyta yal na nu yàlla dàqal seytaane delloo siwaat leen parce que fii guerre sax guerre guerre sax dañ koy régler autour d'une table da nga dañ leen a jaxase wala wala ñu mystiquement ñu laal waxuma ni dañ leen a jaxase waxuma ni dara dama ni mën naa am sama njor kooku ça n'engage ko moi que kii dañ ko war a xabtal parce que ay ay ay sénégalais lañu ay africain lañu li tax ñu génne moo xabtal c'est parce que dafa am soom noonu duñ ko génne li tax ñu génne moo xonjam moo yàqante dafa am ñuy ay africain nag gëm ko yàlla nañ ci yàlla musal yàlla na yàlla musal seytaane yàlla na yàlla musal le président Macky Sall ci seytaane yàlla na yàlla musal képp kuy nuyu fii ci seytaane. yow daal ku ànd ak yow toog nga may ko jàmm ku ànd ak koo àndal nga may ko jàmm ku àndul ak yow nga xas ko. est ce que yow ànduma ak yow. Eh, waaw ci liggéey. su ma ànduloon yow doo dugg sama kër. waaw ci liggéey ànd nañ mais mais côté politique laa wax ku àndul ak yow rek wala ku àndul ak sa président. waaw waaw ku àndul ak sama président moom ànduma ak yow. loolu. parce que gëwuma leen pour man gëwuma leen ay yàqkat lañu xamuñu sax politique amuñu amuñu benn culture politique xamuñu état xamuñu dara dégg nañu pétrole buy ñëw ak gaz buy ñëw rek ñoom ñëpp ñu ni nan profito nan ko jaxat jaxatee def ko ni pays yu yàqu yëpp ne yàq waaw maara taal yi loolu la ñu bëgg def réew mi rek te duñu ko nangu. mais naa la ba may bu ma ne loo. <laughs> man de naa ci te yow réew mi yëpp ci mais Mimi Touré moom li ko metti mooy wax na ko ci ci ci ci conférence de presse bi nee na ma dafa toog rek jékki gis benn message mag Sall mu ne ko li ma la xool. ko ñëpp gisandoo ko député yëpp loolu la ko gisandoo dama ni yow waxkatu waxkatu Lutte TV xamoo dara ci li mu wax. xam dafa wax ma déglu non dafa wax ma dégg. lan nga rek. ma mais moom dafa wax ñëpp dégg. waaw waaw waaw mais yàlla na ko yàlla man mii jàmm rek laa ko yéene sama sœur la sama lépp la ku ko xam-xam ma ku ma xam-xam mu doon jàppale le président Macky Sall ma kontaan ci lool parce que man ku jàppale président Macky rek damay kontaan ci yow ku bàyyi président Macky Sall ma bàyyi la nag waaw ci politique ak koo mënti doon ak koo mënti doon nag waaw su ma leen xamee wala ñu xam leen c'est parce que président Macky Sall moo nekk président de la république ànd na ñoom dugal leen ci gouvernement kon maa seppeeku di jàppale kenn di contre ki leen nga xam ni moo leen créé. loolu kañ la moo leen créé. loolu kañ la yow sa diggante Macky Sall kañ la mel noonu avant nekk président wala nekk. avant muy nekk président Macky Sall man ñu mu daan ci rare personne ñu mu daan toogandool am des ambassadeurs booba ña fa nekkoon ay Mbaye Ndiaye la Alioune Badara Cissé. ay Moustapha Cissé Lo Abdou Mbow mi Marème Faye Sall soxnaam ñu mu turé mi bariwuñu ña fa nekkoon tey ci ñu nekk fii am na ñoo xam ne bërki démb la ba pare di sabote ñoom mayel caam ñoo fa ñoo fool ay genre yi am na am na am na mais man du ma politicien man du ma awma carte parti awma carte APR musuma am carte parti socialiste malgré que sama sœur mooy secrétaire général parti socialiste musuma am carte fenn dëgg Sénégal mooy sama parti dëgg ma tax a jóg dëgg laay wax Macky Sall dañ naa ko ma sama benn moment bu ma tuddoon nangu ndogalu yàlla ku nangu ndogalu yàlla nag da ngay noppalu Macky Sall xalaatul woon ni sax dana nekk président de la République yàllaa ko dogal nekk na ko population yi bëgg ko koy yàlla dogalee muy liggéey liggéey bu mucc ayib ñu war koy ñaanal yàlla mu eggale ay chantier voilà. troisième mandat loo ci wax. troisième mandat amul nan wax Macky Sall kenn mosu ko dégg ñu waxi troisième mandat et troisième mandat xam nga lan moom ku liggéey suñu réew mi ba jàmm rek fi parce que nag duñu taxaw di. di foye di wax ay troisième mandat ak ay lieg dañ ko fi tere tere wuñ ko feeg yooyu ba jël benn vayu jox ko suñu yëf mu yàq nda parce que dégg nañ ni pétrole a ngi fi wala gaz a ngi fi réew mi tàkk yooyu mara day taali gii nag ngeen di wax su ngeen xamoon li leen di yor da ngeen bàyyi li ngeen di yor réew mi du réew mu ni foye réew sëñ Touba réew Mawlaaj Malick réew Baye Niass réew Boukounta Ndiassane réew dégg nga maam euh, ak nit ñu baax ñëpp muqaddam yi ñëpp nekk fii ah, xalif généraux yi nekk réew moom euh, néeg euh, jàngu bi nekk fii fii du réew munuy yàq wala muy saboté pour ay ay dégg nga euh, truc personnel ay ambition personnelle yoo xam ni pour rek jaxat-jaxatee taal réew mi loolu duñ ko nangul kenn léegi face à face Balla Gaye ak ak ak waroon na am samedi passé lan moo tax mu jëwul am non mu jëwul am face à face Balla booy Boy parce que d'abord ci jour boobu la doon ñibbisi mais itam euh, pour respecter les décisions du CNG parce que Papa saw ak euh, Siteu dañu waroon def ñu reporte ko parce que régularisé wuñu woon Makan aussi bëggoon a def face à face bu rëy bëggoon ci boole huit mbër régularisation boobu yëpp xajul woon ci àjjuma bi man maa tollu Paris woo ko téléphone ni ko reporté ko bëggoon na sax forcé ma ne ko non non non ko ba le ndax tey jii soo ko defoon nit ñi burdu bi la ñuy teral nit ñi guddi dañuy suivre burdu bi moo ëpp importance fukki yoon ak juróom euh, làmb ji donc suñu gàmmoo nag bu ci ëllëg sa nag nit ñi ku toog sa kër mën a seetaan ci télévision yi yëpp yi. ngeen fas yéene def lu ne fan ngeen ko bëgg a def. waaw non loolu lépp da ngeen ci jot fan yi waaw da ngeen ko jot fan yi parce que aussi daf ko bëgg a organiser organisation boo xam ne soxlawuñu ay nit ñu bari dafa ñëw fon koy defee nit ñi nañ toog seen kër. loolu lépp daan na fa fekk. mais xanaa bëggoo bruit rek. bëgguma. bruit bruit non bruit dina mais dañuy xam nga fii salle bu ñuy jël peut-être que cent cent cinquante deux cent personnes fay nekk mais dañ koy yemale. voilà. ok loolu am na solo boo ñëwee Balla Gaye na nga ko nar nan nga ci fas yéene liggéey parce que Gaston tamit léegi dañuy gis promoteur yi répétition rek ngeen di def yi ngeen doon def rek. ino ñun ñu ngi liggéey. ñu war a liggéey yéen su ngeen deful li ngeen war a dana leen di dàqaat dàqoon naa leen dama leen di dàqaat. waaw Beuz mooy yéen ñëpp liggéey leen créer leen jox naa leen autorisation ngeen war a créer war a liggéey ñun lu ngeen wax ñu exécuter foofu loolu ñu mën a yem waaw sans problème. Balla Gaye euh, euh, Gris Bordeaux ñaata nga ci gagné. kooku du sa affaire. gagné nga xaalis ba. du que. d'accord mais damay laaj. dama ni du sa affaire. bi mu tëri ma la sama affaire mais damay laaj. non non mais lii du sa affaire affaire xaalis yow ñaata la bëri di fay. wax ko te jabar dégg ko. sama jabar kay yoonam nekku ci. ah mais fii itam sa yoon nekku ci. non mais sama xarit sama doom nga ma lay laaj ñaata la bës di fay. après mën naa la ko. non non wax ma ko ñëpp dégg. après ma wax ni nga gën ci Balla Gaye. non non ma li la fay. su la fay lu doy ma jëlee la fa yóbbu la feneen nga xam ne la bës di fay. foo mu yóbbu Gaston Production. looy nëbbatu sa jabar da ngeen di takk jigéen ba ko nëbbatu. kon sama jabar ma ko nëbbatu. loolu la bës di fay. dara ah bon kon de yow. bee boo nga musiba dal na la bee boo alaaj Mansour Mbaye ban nga koy tuddee réew bu bu rek lu rëy voilà rëy rek lu rëy rek alaaj Mansour dafa nit ku rëy la ci man lu rek la la mën am ci man. moom de bok nga ci bokk na ci ñi nga fo gën a fonk ci réew moom. parce que daf maa fonk moom itam muy nit ku baax ku ko fonk doo ko baaxoo waaw ku ko fonkul rek alaaj Mansour ko fonk baaxul ku ko fonkul baaxoo. naa ci looy tàggatoo. xanaa rek di la gërëm di la sant di la bës fëgala fëgala ah waaw oui moom ak euh, jëf-jël ak fëgala ana neex ñëpp vraiment maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di encourager ñoom ñëpp ah ama ñëw na nga waxoon ma day ñëw ñoom ñëpp maa ngi leen di encourager yow ñooñu say gaalanu parce que da ngay mat foofu ci ñoom da ngay da ngay dóor dóoruma kenn kenn ci door leen nga nekk dóor maanaam mooy lan dóor ne lay dollar kenn mësuma si mësuma si lekk dërëmu nit nag. ay way ji. wallaahi la man du ma def loolu père. ah bon ok d' kon yàlla na yàlla suturaal yàlla na yàlla dimbali suturaal mbiru làmb yëpp suturaal amateur yi suturaal ñëpp. bëgg. combat le 6 novembre mooy dàq ci at ak at yi ñëwoon ak a bëre xeex. loo xamante ne ñu ñëw ay 5 minutes yi noonu. ku affronté Lac de Guiers 2 affronté Balla xeex ak ñoom ñu reculer xeex ak Ama Baldé mu reculer xeex ak ah bu nee la di nga xeex ak Siteu kañ. donc Siteu kañ la préparé. dama pare man li ma pare moom na ko pare rek combat bi nu mu mel ci moom. dóorante ba ne ba ne saay ba mar naan dem naa leen ni wax man loolu laa gis combat ba. bu la neexee bu def dara. <laughs> mbokk yi Kajoor production ànd ak Ibrahima Diop ñoo woote ginnaaw bi ñu tëggee combat Gris Bordeaux ak Ama Baldé ba pare nee nañu le 16 octobre 2022 ci arène nationale la ñu ubbee seen saison ci diggante armée bu benn baraak ak mbay guy guy bawal bawal bu saf xorom bi lamb ji nag en live lay doon pay per view ci seen affiche point com waa Sénégal 1800 francs dong la diaspora bi 4,99 seen affiche point com le roi en pay view au Sénégal.